rajo Rewmi FM waaye laata loolu di rafetlu rek nangu bi nga nangu vraiment répondre tey ci suñu invitation bi ci suñu émission bi di SOS santé. jërë ngeen jëf asalaamaaleykum euh, mbokk euh, auditeurs yi maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal di la remercier euh, Fatou Baba Fall ci invitation bi ci émission bi tey. Mm-hmm. merci beaucoup a vous également docteur euh, dañuy tàmbalee rek ci li nga xamante ne di spécialité bi. bii di neurochirurgien chaque fois dañuy dégg neurochirurgien neurochirurgien bu ñu waxee neurochirurgien euh, concrètement lan lay ëmb. waaw neurochirurgie suñ ko waxee benn spécialité la ci ci faj. Mhm. voilà spécialité boo xamante ni mi ngi jël en charge lépp li nga xamante ni mooy feebaru yoor ak feebaru moelle épinière. Euh, ci euh, li nga xamante ni euh, feebar la ci ci ñaari organes yooyu nga xamante ni tudd naa ko. Mhm. daanaka benn la sax parce que ñu ngi koy woowee système nerveux central. parce que bu ñu mhm. nee système nerveux central mooy yóor ak li ñuy wax moelle épinière mhm. lépp li nga xamante ni feebar am na ci neurochirurgien bi moom moo koy faj su fekkee ni loo xamante ni lu ñuy opérer la. suñu collègue neurologue yi aussi dinañu faj feebar yu jëm ci loolu. mais lu ñuy opérer la. neurochirurgien bi moom moo koy euh, moom moo koy euh, faj. Mm-hmm. lépp li nga xamante ne aussi mi ngi muur loolu muy euh, moelle épinière bi ak cerveau bi mooy que ni voilà crâne bi. ci ci ci ci tubaab. Mhm. ak colonne vertébrale bi aussi loolu euh, neurochirurgien bi moom moo koy faj. a mhm. li nga ni aussi malformation la lu jugee lu lu jëm ci loolu muy cerveau bi ak crâne bi wala moelle épinière bi ak colonne vertébrale bi loolu aussi neurochirurgien bi moom moo koy jël en charge. Mhm. donc loolu la ñuy woowee neurochirurgie. mu mel ni da di liggéey en symbiose avec euh, les neurologues. tout à fait dañuy liggéey en symbiose ak neurologue yi mais aussi ak euh, suñu naataangoo yi suñu collègue anesthésistes yi. ak mhm. aussi voilà oncologue yi radiothérapeute yi ak kinésithérapeute yi ak surtout ñi nga xamante ne ñoom ñooy def radiologie. Mm-hmm. parce que ñoom ñoo ñuy permettre aussi ñu poser suñu diagnostic pour mën a jël en charge suñu malade. Mm-hmm. Euh, euh, neurochirurgie certainement nekk na benn pàcc bu yaatu ci li nga xamante ne moom muti médecine jàngu médecine moom ñëpp xam nañ ne à part euh, certainement ay bac plus six la entre autres ñu bëggoon rek xam ban niveau de d'étude le médecin bi di spécialisé wu ba nekk neurochirurgie neurochirurgien bon cursus bi yëpp yëpp yëpp boo ko tënkee mu ngi toll ci treize ans treize ans d'études treize ans d'études ba pare da def médecine médecine xam nañ ni voilà huit ans la cest à def sept ans yoo xamante nekk université huitième année bi mooy année thèse bi pour soutenir sa thèse ba pare après ci ngay door a def sa spécialité euh, neurochirurgicale donc spécialité bi nag cinq ans la voilà cinq ans la dafa am première année deuxième mm-hmm. ba cinquième année ba def sa mémoire ba pare nag ci ngay door a nekk neurochirurgien donc lépp lépp lépp lépp boo ko tënkee muy huit plus cinq moom moo lay jox treize ans d'études pour nga mën a nekk neurochirurgien. Euh, neurochirurgie crânienne dañ koy dégg bu ñu waxee neurochirurgie crânienne xam naa ne crâne moom sa rapport avec la tête mais pour mbokk auditeurs yi nga xamante ne expression bi apparemment mën na luur ci ñoom boo ñu ko doon expliquer en terme bu gën a terre à terre waaw xam nga neurochirurgie dafa bëri ay sous spécialité mhm. voilà ci biir neurochirurgie dafa bëri ay feebar yoo xamante ni mën nga ci spécialisé wu mooy comme li nga jot wax mën na nekk neurochirurgien boo xamante ni lu ñuy wax ay pathologie vasculaire kese bu ñu waxee pathologie vasculaire moom mooy pathologie yu méngoo ak euh, sidit bi nga xamante ni mhm. voilà dafay yóbbu wala muy indi deret donc loolu la ñuy wax neurochirurgien vasculaire am na ñoo xamante ni aussi mën nañu spécialisé wu lépp lu ñuy wax euh, tumeur mooy les neurochirurgiens yoo xamante ni il font que euh, la pathologie tumorale mm au niveau du crâne donc euh, voilà mën nga am ay spécialité yu yu yu yu yu jëmeen ci noonu mm-hmm. donc ci neurochirurgien aussi mën nga nekk neurochirurgien du rachis mm-hmm. voilà donc mën nga def formation boo xamante ni bés boo amee sa diplôme neurochirurgien ba pare mën nga dem defaat yeneen formation yoo xamante ni da lay permettre nga su spécialisé wu en neurochirurgien du rachis mm-hmm. voilà neurochirurgien du rachis moom mooy. du ki nga xamante ni mi ngi jël en charge voilà feebar boo xamante ni sans rapport avec la colonne vertébrale ou bien la moelle épinière et les mm-hmm. racines. Mm-hmm. voilà bu ñu nee les racines mooy neer yi ñi nga xam ni par exemple ñu ngi am nerf sciatique ñi nga xamante ni ñu ngi am problème ndig mhm. euh, ci mag ñi surtout mais ñi nga xamante ni aussi dañu def accident am problème yoo xamante ni dafa laal colonne vertébrale bi euh, laal moelle épinière bi wala laal neer mhm. donc euh, ñun euh, bon mun naa ne man je suis sous-spécialisé en en rachis donc voilà je suis un neurochirurgien voilà chirurgien du rachis également mm donc loolu mooy sama sous spécialité. Mhm. donc loolu moom mooy chirurgien du rachis. ñu bëggoon xam rek euh, ndax euh, durée d'étude bi tamit euh, dafay déterminer par rapport ak yi nga mujjee wax neurochirurgien neurochirurgie crânienne wala du du rachis wala ci spécialisation bi ngay defee loolu. mën na nekk ci ñaar yëpp. ci mhm. biir spécialisation bi. voilà am na fooy toll boo demee ba xaw a différencier wu en quatrième ou bien en cinquième année mën nga kuutaat beneen diplôme boo xamante ni en plus le diplôme de de neurochirurgien bi. Mhm. mën nga am diplôme boo xamante ni c'est un diplôme de sous-spécialité. Mhm. boo xamante ni voilà mën nga ko def mais yi ci ëpp ñu ngi koy defee en France. Mhm. voilà donc euh, loolu la mais aussi bu la neexee mën nga bàyyi bo boo paree spécialité bi nga xamante ne mooy neurochirurgien bi nga dem defaat beneen yeneen diplôme moom la ñuy wax les diplômes interuniversitaires DU mhm. wala nga def ay master yoo xamante ne dina la permettre nga sous spécialisé wu si neurochirurgie mhm. donc loolu yeneen at la yooyu jàngaat yoo xamante ni en plus ci treize ans yu ñu waxoon man na nekk un an comme mën na nekk deux ans de formation mm-hmm. yoo xamante ni da lay permettre nga gën a spécialisé wu ci benn ci benn mbir mm-hmm. euh, docteur Sy dégg naa la léegi nga wax euh, mun nga dem spécialisé wu ci ci ci bitim réew bu ma juumul dafa men loolu mu bëggoon xam rek ndax sous spécialisation bi fii amuñu ay institut privé amuñu ay institut yoo xamante ne euh, war nañ ko mun a def fii au lieu ñuy dem fi nga xamante ne moom moo di bitim réew ok bon liggéey yooyu ci neurochirurgie pour le moment amagu fi donc amagu fi moo tax ñu dem bitim réew di ko def mais ci at yu néew a néew a néew incha allah ak euh, suñu professeur yi nga xamante ni ñu ngi leen di jaajëfal au passage muy professeur Seydou Boubacar Badiane professeur Youssoufa Sakho mhm. professeur Momar Kodeba professeur Ndaraw Ndoye professeur Alioune Badara Thiam professeur Thioub professeur Maguette Gueye Sakho ak professeur Maguette mbay mhm. ak professeur Abdou Aziz Diop bu nekk euh, hôpital principal mhm. donc ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen gërëm di leen sant ci formation bi nga xamante ni jox nañu ko mhm. donc ci at yu je pense que dinañ créer ay DU mooy ay diplôme euh, interuniversitaire wala diplôme universitaire yoo xamante ne dina permettre voilà euh, étudiants yi nga xamante ne ñu ngi jàng neurochirurgie ak ñi nga xam ne am nañ diplôme bi ba pare ñëw sous spécialisé wu ci spécialité bu ñu bëgg. Mm-hmm. moo xam ci vasculaire la wala moo mm-hmm. xam ci chirurgie du rachis la wala voilà ci endovasculaire. Mm-hmm. Euh, docteur dañuy taxaw foofu ndax c'est vrai que yaa ngi ci secteur bi mais tey jii bu demee ba nga xamante wax nga ko am na ay jéego ñuy def certainement fii léegi ay année ci kanam dinañ mën a def spécialisation yi mais loolu chaque fois dañuy wax ñun suñu médecins yi dañoo xarañ dañoo xarañ mais est-ce que tamit xarañte boobu amul benn benn benn paradoxe boo xamante ne ça tourne autour de ça. le fait que ñu naan donc on a des médecins aguerris entre autres tey bu ñu demee ba nga xamante ne euh, ressources humaines bi mu ngi fi mais certainement jàng bi nekk fi dañuy obliger dem bitim réew pour mën a def boobu amul paradoxe ci loolu. non xam nga xarañte bi ça n'a rien à voir ak fi nga defee sa spécialité. Mhm. parce que xarañte bi mi ngi nekk ci voilà yow say exercice voilà say résultat par rapport ak sa liggéey. Mhm. ak recherche yi ngay def ak yooyu donc ça n'a rien à voir ak euh, fi nga defee sa spécialisation. Mhm. mais effectivement je pense que voilà. ci comme ni ma ko waxee léegi nii ci at yu néew incha allah. te yooyu yëpp dinañ ko mën a créer. ba nga xamante ne formation bi nga xam ni xale yi moom la ñu war a am dinañ ko am incha allah. neurochirurgie pédiatrique pédiatrie moom ñëpp xam nañ ne ça a avec les petits mooy xale yu tuuti tey jii neurochirurgie pédiatrique docteur lan la wundu donc bu ñu nee neurochirurgie pédiatrique mooy neurochirurgien boo xamante ni yow pathologie chirurgicale yi nga xam ne xale yi moom la ñu am ñu war ko opérer yow loolu ngay faj mhm. loolu la ñuy wax neurochirurgie pédiatrique mhm. donc loolu aussi sous spécialité la ci neurochirurgie bi nga xamante ni moom mooy neurochirurgie général mhm. donc euh, buñ ñu nee neurochirurgie pédiatrique loolu donc donc bu ñu nee neurochirurgie pédiatrique moom mooy neurochirurgien bi nga xamante ne lépp loo xamante ne mooy pathologie bu ñu war a opérer boo xam ne xale de zéro à quinze ans moom lay faj. Mhm. loolu la ñuy wax neurochirurgie pédiatrique. Mhm. donc neurochirurgie pédiatrique boo ko déggee mooy euh, yenn malformation yi nga xamante ni xale yi dañ koy am wala yenn feebar yoo xamante ni tumeur lay doon wala. ay jàngoro yoo xamante ni ci yóor lay doon ci biir bopp xale bi mhm. wala ay malformation wala mu nekk wala mu nekk ay infection yooyu yëpp buñ ko waxee d'habitude buñ nee neurochirurgie pédiatrique c'est en rapport avec sa donc neurochirurgie pédiatrique aussi sous spécialité la si neurochirurgie générale. Mm-hmm. ndax faj boobu yomb faj boobu yombul neurochirurgie en général benn yomb ci. Mm-hmm. moo xam ci adulte bi la moo xam ci ci ci xale bi la. Mm-hmm. donc benn yomb ci mais ci xale yi daanaka la gën a la gën a méttee parce que euh, voilà ñoom seen pathologie yu ci bëri voilà euh, dafay xaw a métti day soxla accompagnement boo xamante ni peut-être voilà amaguñ ko. donc euh, loolu la loolu la mais nag dafa doon benn sous-spécialité si neurochirurgie boo xamante ni c'est un peu sensible parce que mbirum xale la parce que xale rek dafa dafa dafa fragile mm-hmm. euh, rawatina mu am yeneen feebar yoo xamante ni voilà ci ci cerveau bi lay doon wala mu doon ci moelle épinière bi wala mu doon ci ci crâne bi wala ci colonne vertébrale bi donc day gën a nekk lu difficile pour mën a traiter mais mais thérapie bi euh, ci ci niveau yu bëri la donc xale yi voilà li ci war dina ko ci def mais parents yi aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñooy accompagner xale yi thérapie bi dafa dafa day dem ba ci ñoom parce que dafa dañu war di diisoo ak ñoom di waxtaan ak ñoom di leen informer di dalal seeni xel donc loolu aussi dafa doon ci dafa bokk ci faj bi. Mm-hmm. après bu weesoo loolu voilà y a aussi des des pathologies yoo xamante ni ay feebar yoo xamante war nañ ko mën a prévenir. Mm-hmm. ci sensibiliser parents yi. Mm-hmm. mooy surtout les pathologies traumatiques yi nga ay accident la. donc accident yi lu lu lu am solo lu ñu war a waxtaanee tey parce que dina permettre aussi parents yi ñu gën a mën a mën a vigilant côté boobu parce que surtout pathologie traumatique bi ma jot a wax mm-hmm. boo seetloo ñun voilà bu ñu bu ñu fanaanee wala ñu ñu yendu li ci ëpp li ñuy gën a indil ay xale rawatina ay xale yi nga xamante ni dañoo daanu mhm. wala xale yoo xamante ni dañuy def accident yoo xamante ni ñu ngi jàng dox sax mais da ngay dégg ñu ne voilà dañ ko moto du ko fiir wala oto donc ce qui veut dire que peut-être manque de vigilance amoon na tuuti ci parents yi mhm. donc dañuy sensibiliser parents yi vraiment ñu gën a vigilant mhm. côté boobu gën a bàyyi xel xale yi gën a euh, utiliser ay ay mesures de sécurité surtout ci seen i kër yi Euh, ci ci ci ci xale yooyu la ñuy des ndax euh, euh, durant bi nga commencé di exercer ce métier mus nga donc dajeeg benn benn pathologie ci xale boo xamante ne vraiment ka boobu daf la marqué c'est vrai que médecin nga mais laata loolu bon nit nga xol yërmande day jog donc est que mën nga ñu wax benn anecdote boo xamante ne vraiment dafa concerné li nga xamante ne moom moo di ci ci ci wàllum tout tànk yi. waaw képp kuy faj moom te nekk en contact ak xale surtout lu jëm ci neurochirurgie ak yeneen spécialité chirurgicale yi nga xamante ni day dal xale yi du ñàkk nga am benn bés boo xamante ni di nga tase ak benn xale bulo xaw a marqué man effectivement am naa benn xale bu ma marqué xam naa euh, voilà ci sama ci sama liggéey voilà am na vraiment benn xale bu ma marqué boo xamante ni dafa amoon feebar euh, du ñuy wax tumeur boo xam ne tumeur bi vraiment fu mu situé woon nekk na loo xamante ni lu lu métti la métti na dans la mesure mun voilà mënuñu fa agg moo xam fi la mo xam ci bitim réew sax amaguñu ba léegi ay moyens yoo xamante ni tumeur yu mel noonu war nañ ko mën a opérer malheureusement xale bi loolu la amoon ba yàlla def euh, voilà mu ñàkk ci bakkanam mm-hmm. donc loolu ça m'avait vraiment touché parce que xale bi dañu dem ba dama xawoon euh, voilà attaché wu un peu ci moom parce que à chaque fois chaque fois voilà day nekk ci yaayam di ko wax docteur si docteur ba man daal suma ñëwul du nekk si jàmm mm. mu dem nag ba affaire bi xaw ma marqué mm. waaw d'accord et comment est-ce que naka nga ko surmonté parce que je suppose que bon am nga habitude di fréquenter ay nit yu am pathologie mais je suppose que yenn yi moom bu la jaaree il faut vraiment avoir un mental bon nit lañu avant tout aussi. à fait foog nga am bu xaw a dëgër. Mhm. foog nga am mental bu xaw a dëgër te loolu ñu ciy sant yàlla parce que aussi suñuy waajur euh, yar nañ ci. Mhm. te aussi voilà sant yàlla côté boobu parce que peut-être suñu diine may nañu voilà am nañu ab tuuti ngëm-ngëm boo xamante ni. Mhm. voilà dinañu permettre. Euh, voilà ñu ñu ñu ñu ñu jiital loolu. parce que loolu moom boo ko jiitalee dina wàññi lu bëri. mais effectivement bon surmonté nañ ko mais aussi nekkul euh, loo xam ne day dañ ci suñu xel. ñu ciy sant yàlla bu baax ci mu permettre ñu surmonter ko te noonu aussi la def di surmonter de temps en temps yenn yenn difficultés yi ñuy mm-hmm. parce que des di nga nekk benn malade boo xamante vraiment a mm-hmm. boo xasee ba àgg mm-hmm. doo mën a def dara doo mën a ci benn malade donc loolu mooy tax daal doo mën a mais sant yàlla ci vraiment bi ñu joxee dal

nga mën ko dund sans problème. Mm. est-ce que vous da ngeen di liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ay ay ay ay psychologue. non psychologue yi euh, des fois effectivement dinañu permettre ñu ñu mën a surmonter yenn yenn kii donc psychologue yi euh, d'habitude euh, dinañ leen dinañ leen woo ci yenn maladies yi nga xamante ne vraiment mën nañ ci dimbali. Mm-hmm. pour ñu mën leen euh, faj ci anam ñu mu waree mais du tout le temps lay doon. Mm-hmm. temps lay doon Euh, mais des fois ñu woo leen pour yenn maladies yi nga ci côté boobu. Mm-hmm. Euh, ci ci suñu waxtaan sànq wax nga euh, il arrive que ngeen di liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les kinésithérapeutes kinésithérapeutes kinésithérapeutes yi bu ñu leen di déglu lu ci bëri dañuy jàpp ne ñi nga xamante ne certainement dañu dem ba am problème mu yàq wala problème mu dox ci ban moment ci seen consultation wala ci ban moment wu traitement bi ngeen donc. ko liggéey ak ñi nga xamante ñoom ñoo di ay kinésithérapeute kinésithérapeute yi vraiment lu am importance ci wàllu neurochirurgie mm-hmm. pourquoi parce que dinañ intervenir des fois avant opération pour permettre ñu ñu mën opérer vraiment ci condition yoo xamante ni malade bi bés bu ci génnee dina gën a mën a gaaw a récupérer mm-hmm. voilà après opération aussi surtout ci la ñuy intervenir parce que ñoom ñooy def lu ñuy wax rééducation fonctionnelle donc mm-hmm. bu ñu rééducation fonctionnelle mooy pour permettre malade bi laago bi récupérer waat. Mhm. voilà c'est-à-dire mu mën a fonctionner waat. Mhm. voilà comme avant. Mhm. donc ñoom vraiment voilà ci wàllu faj bi lu am importance côté neurochirurgie. voilà d'accord euh, euh docteur si dañuy des euh, ci ci ci ci wàllu ba léegi ah sànq yaa ngi ñu ko doon wax lépp lu jëm ci wàllum euh, seen spécialité dafay ñëw ci li nga xamante ne moom moo di jàngoro yi di am moelle entre autres mais ndax yenn for yenn yenn conditions yi et fii niveau de fi nga nekk nii peut-être ci clinique bi ci hôpital Fann di ngeen koy farataal di di parce que bu ne nee certainement moelle épinière ça doit être un peu plus compliqué. waaw bu ñu nee moelle épinière ça peut être compliqué. Mm-hmm. mais euh, voilà li may wax ci côté malformation boobu rek mooy aussi comme ni ma ko waxee woon mm-hmm. ci accident yi. Mm-hmm. mooy ci traumatisme yi. mooy que voilà am na yenn feebar ci ci colonne vertébrale mën nañ prévenir ci. ci ci ci ci ci yaay bi mm-hmm. c'est-à-dire avant même voilà ku yaay ci di jël di di jël di jël ëmb mm-hmm. mën na jël lu ñuy wax acide folique mm-hmm. donc acide folique voilà dafa nekk voilà composé boo xamante ni voilà day dugg ci deret et puis voilà day permettre voilà yenn malformation yi ñu éviter ko bu fekkee am nga ci lu doy ci sa yaram donc dañuy wax yaay yi rek ñi nga xamante ni ñi ngi bëgg jël ëmb wala ñi nga xamante ni jot nañu ëmb sax ci début ëmb bi ñuy jël li ñuy wax acide folique parce que dina éviter voilà yenn formation yu bëri di constituer parce que yenn malformation yi ñàkk acide folique bu bëri moom koy mm-hmm. ba tax mu am donc mm-hmm. acide folique lu am importance moo tax nga gis gynécologue yu bëri bés bu ñu gisee voilà seeni patiente dañ leen di mettre sous acide folique mm-hmm. mais malformation yi aussi voilà bëri na voilà mën na nekk aussi malformation boo xamante ni bi ci gën a fréquent ci gën a fréquente ci neurochirurgie moom la ñuy wax hydrocéphalie mhm. waaw hydrocéphalie ba boo ko déggee mhm. mooy voilà euh, ndoxu bopp bi nga xamante ni voilà dafay nekk ci bopp bi dafay dafay ëpp mhm. dafay ëpp parce que voilà ni bopp bi waroon formé woo ni yóor bi naroon formé du ko formé woo léegi poche yi nga xamante ni ñoom ñoo waroon am ndox dañuy dañuy yokk dañuy gën a dilaté woo dañuy dañuy rëy mm-hmm. bu ñu rëyee nag mënuñu rëyaaleel bopp xale bi mm-hmm. moo tax nga gis ñoo xamante ni voilà seen doom dañuy am bopp yu rëy torop torop torop mm-hmm. voilà donc yooyu mooy ñaari malformation yi nga xamante ni moom moo ci gën a euh, fréquente ci neurochirurgie mooy hydrocéphalie ak bi ñuy wax spina bifida donc spina bifida voilà ñàkk fermeture la bu normal ci ci colonne vertébrale bi ce qui fait que nerf yi nga xamante ne ñoom ñoo waroon euh, constitué wu normalement duñu constitué wu normalement dañuy génn te bu ñu génnee voilà mën ñu nekk ci benn poche boo xamante ni moom la ñu woowe spina bifida mhm. donc formation boobu di spina bifida nag moom li ma jotoon wax léegi di acide folique bi lu am importance la pour voilà ñu bañ ko am donc mhm. di ko jël ci avant ngay jël ëmb mhm. deux à trois mois avant ngay jël ëmb ak duru durant ëmb bi yëpp day mhm. tax vraiment malformation boobu voilà mu mu mhm. ni aspect sensibilisation bi ci côté boobu des na parce que malformation bi nga xamante ne moom mooy hydrocéphalie bi dafa mel ni de jour en jour bon donc koy farataal di gis des fois am na ñoo xamante ne sax euh, mun nañ jàpp ne problème mu gène la ba à un certain moment plus xale bi di màgg donc plus euh, muy bopp bi bon ngeen jégal ñu mbokk auditeurs xam naa day xaw a plus xale bi di màgg plus ñuy gën a gis que ne kii bon yaram bi ak bopp bi dafa am donc vraiment déséquilibrant donc du coup est-ce que aussi au niveau donc de la médecine ñi ngi farataal di sensibiliser vraiment par rapport ak euh, jàngoro yoo nga xamante ne xanaa bu dalee xale bi moom faw ñu opérer côté opération bi certainement ça doit coûter un tout petit peu euh, beaucoup de fortune. waaw xam nga neurochirurgie moom euh, voilà faj bi mm, yombul. Mm-hmm. faj bi yombul parce que opération la te bu ñu opération di nga def ay analyse di uh-huh. def ay rajo voilà di nga fay opération di nga fay lal bi ak yooyu mais aussi ñu ngi gërëm euh, voilà euh, gouvernement Sénégal si si loolu uh-huh. vraiment si jéego ñu def côté boobu parce que lu uh-huh. bëri wàññi nañ ko mais aussi voilà bu ñu nee hydrocéphalie comme liñ ci jot a wax côté sensibilisation bi des na parce que aussi malformation la boo xamante ni ñun suñu dëkk muy Sénégal voilà permettre ñu li ñuy wax euh, voilà interruption vraiment thérapeutique de grossesse voilà donc bu doon dëkk yi nga xamante ni ñoom permettre nañ ko am na ñoo xam ne bés bu ñu leen defalee échographie ñu gis ni ah xale bi dafa am yenn malformation mm-hmm. mën ko voilà arrêter déjà mm-hmm. voilà arrêter grossesse bi mais ñun euh, tollooguñu foofu muy benn ñaareel bi mooy que ni voilà li koy joxe daal benn bi nga xamante ni wóor nañu mooy deret bu jege yantoo trop trop trop trop notion de consanguinité boobu ñuy wax mm-hmm. voilà ñaari jege ñaari euh, voilà deret yu jege trop ba seen biir lu ci ëpp daal voilà ci yi nga xam ne dañu am hydrocéphalie voilà loolu loolu la ñuy gën a seetlu ci ci ci ñooñu mm-hmm. donc hydrocéphalie aussi voilà faj bi euh, voilà comme ni nga wax du faj bu yomb mm-hmm. parce que aussi voilà dafa am façon faj yu bëri mais bi nga xamante ni moom lañ ci gën a def daal te mu ëpp ci moom la wax dérivation ventriculo-péritonéale c'est-à-dire ndox bi nekk ci bopp bi la ñuy génne jaarale ko ci benn tuyau yóbbu ko ci biir bi pour mu sey ci biir bi mm-hmm. donc loolu buñ ko waxee ce qui veut dire que matériel bi ñu utiliser muy euh, matériel bi ñuy wax valve de dérivation kilo péritonéale mm-hmm. boobu aussi dafa am lu muy jar mm-hmm. voilà san coût voilà te avant boobu rajo yi mu war a def mu scanner bi ak yooyu aussi dafa am coût voilà intervention bi aussi pareil donc du feebar boo xamante ni aussi faj ko dafa yomb mais comme li ma waxoon sànq ñu ngi sant yàlla aussi ba nga xamante ni hôpital Fann am nañ fa service social boo xamante ni macha allah ñu ngi dimbali yenn néew di doole yi nga xamante ni voilà seen loxo jotul seen ginnaaw pour dimbali leen ci côté boobu mais aussi am na yenn ONG yoo xamante ni aussi ñu ngi dimbali xale yi. Mhm. ci côté boobu. Mhm. donc foofu ñu sant yàlla. Mhm. malformation boobu di hydrocéphalie euh, bopp bi rek la ñuy gis mais bu fekkente ne traitement bi dafa xaw a yéex wala les moyens ne suivent pas est-ce que amul euh, beneen handicap bu mu mun a jural xale bi aussi. si bien sûr ça peut avoir des conséquences après après après voilà à long terme. parce que voilà xale bi euh, déjà bu ñu nee malformation mooy que li waroon formé wu normalement formé wul normalement. Mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, xale bi ni mu war a mel comparer ak xale bu normal. Mm-hmm. mën nekk. voilà donc le euh, plus souvent boo seetloo xale yoo xamante ni après voilà seen toog dina yéex seen dox dina yéex. voilà seen wax dina yéex. Mhm. voilà du xale yoo xamante ni seen développement psychomoteur day normal comme développement yeneen xale yi nga xam ne amuñu mal formation mhm. mais aussi voilà li ci gën a spectaculaire mooy bopp bi bi nga waxoon sànq nu muy rëyee noonu comparé ak yaramu xale bi mhm. le plus souvent dañuy nekk ñoo xam ne seen bopp yi dafay ëpp sax seen seen yaram yi donc euh, loolu après voilà lii tax nag euh, voilà bopp boobu arrêté di continuer di màgg mooy opération bi ma la wax nga xam ne moom lañ koy def wala beneen opération bi nga xamante du jar mm-hmm. mais voilà ci biir bopp bi lañ koy lañ koy def mais yooyu dafa am ay type de de de de de d'hydrocéphalie yoo xamante ni moom lañ koy def mm-hmm. du du yëpp lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy faje noonu mm-hmm. mais faj bi bu teelee mu am suivi bi nga xamante ni suñu mbokk rééducateur yi ma waxoon sànq voilà aussi def nañ ko lu ci bëri vraiment dina wàññeeku par rapport ak euh, euh, conséquences yi nga xamante ni moom moo moom moo war a mën a feeñ ci bi am hydrocéphalie. Mmh. Euh, docteur na no no no réalité hein euh, bu amee sa doom bu amee benn jàngoro wala benn handicap on a tendance à peut-être di ko stigmatiser entre autres wax nga ko sànq gërëm nga soxna yi ndax le plus souvent ñoom ñooy indi seen doom yi au niveau des structures hospitalières ñu leen ci jaajëfal ñoom it bu baax a baax mais ndax euh, il vous est arrivé une fois benn euh, waajur ñëw expliquer genre doomam certainement dañ koy ne dafa amee rab wala dañ koy di entre autres ndax mos nga dund donc benn genre confidence bu ni mel. waaw xam nga ñun Afrique lañ nekk te buñ nee Afrique moom voilà on a réalité mm. réalités. Mm. comme on dit am na yenn dëkk yoo xamante ni xale bu fa amee fali dañ koy dañ koy rey am na ñoo xamante ne duñ la bàyyi nga dund. Mm. mais ñun heureusement voilà peut-être benn côté sensibilisation bi voilà dem na ba nga xamante ni voilà nit ñi léegi ñu ngi koy ñu ngi koy dékku. Uh-huh. mais euh, voilà ci yenn dëkk yi nga xamante ni xaw na sori tuuti euh, voilà Ndakaaru voilà effectivement am na ñoo xamante ni bu ñu amee doom yu mel noonu voilà dañ leen di taxé de loo xamante ni aussi voilà dañ leen stigmatiser comme li nga wax mm-hmm. voilà mën nañ ne doom bi dafa amee lu mu àndal mm-hmm. wala voilà wala traité ko sax de loo xamante ni voilà bëgguma sax jaar mm-hmm. effectivement on a eu des confidents ci yu mel noonu yoo xamante ni voilà ñëw nañ ñu nettali loolu mais teewul comme li ma wax voilà Sénégal léegi ak voilà waxtaan bi ak yooyu ñu ngi sensibiliser wu si côté boobu xam ni voilà loolu ay malformation rek la mais du loo xamante ni vraiment lu lu lu bon la. Mm-hmm. d'accord euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi teewlu seen émission bii di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di daral ki nga xamante ne moom moo di docteur El Hadji Cheikh Ndiaye Sy mu nekk neurochirurgien nekk aussi ancien internet des hôpitaux waaye nekk aussi maître assistant ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru rawatina ca faculté des médecines docteur dañuy laal ci beneen pàcc bi nag daal di dugg ci li nga xamante ne moom moo di vraiment donc spécialité bi nga xamante ne moom moo di neurochirurgie ay fan yu wees rek euh, amaloon ngeen fi bon seen seeni congrès euh, ci biir congrès boobu sax amaana am na yu bëri yoo xamante ne génn nañ fa métier bi di li nga xamante ne moom moo di chirurgie naka la comment ça se donc de manière générale. alhamdulilah ñun moom ñuy sant yàlla côté bu ñu nee voilà neurochirurgie Sénégal parce que. Mhm. comme ñi ma yàlla dafa def. def dañu am ay maître yoo xamante ni macha allah voilà li nga xam ni war nañ ko def si ñun ak suñu yeneen ndaataangoo yëpp def nañ ko. Mm-hmm. Mm-hmm. du ñu tete voilà du ñu kunge du ñu teg ci yoon ba pare voilà yar ñu ci vraiment voilà jàng ak jàngale. Mm-hmm. ba tax na neurochirurgie macha allah voilà ba ñu nee neurochirurgie Sénégal moom benn famille mhm. voilà amul xiro amul ŋaayoo voilà ñëpp ñu ngi ànd nekk benn. Mhm. ba tax ñu organiser woon suñu septième congrès voilà de la société sénégalaise de neurochirurgie. Mhm. ci euh, fan yu ñu génn. Euh, teg ci voilà fête euh, de départ à la retraite bu suñu maître suñu chef suñu mentor professeur Seydou Boubacar Badiane mhm. donc moom mënuma ñàkk euh, voilà ko gërëm mënuma ñàkk bañ a wax ci moom ci émission bi parce mhm. que bi mu jëlee retraite am yàggul Euh, mais vraiment li mu def ci neurochirurgie waxuma sax Sénégal mais Afrique subsaharienne mhm. vraiment jéggi na dayo parce que formé na lu toll ci quatre vingt trois neurochirurgiens si mhm. quatre vingt trois neurochirurgiens yooyu encadré na presque quinze yoo xamante ni macha allah léegi ay professeur agrégé lañ mhm. waaw ah, donc moom moom mën nañ ne voilà moom suñu papa ci neurochirurgie te ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax témoignage yi nga xamante ne defoon nañ ko ci fête bi voilà seede na ko. Mhm. donc moom dañ koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam. bàyyi jéegi wéral ay cërëm ah, bàyyi ko mu di ñu gunge di ñu continuer di ñu conseiller ba ci kanam kanam alhamdulilah léegi neurochirurgie voilà bu Sénégal alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ba tax suñu organiser congrès yi da nga gis suñu yeneen naataangoo yu bëri dañuy ñëw. Mm-hmm. ñu nekk ci sous région bi dañuy ñëw participer. Mm-hmm. donc ci congrès bu ñu mujjoon organiser muy septième congrès bi. Mm-hmm. presque plus de treize nationalités ñu ngi fa woon. ñoo xamante ni malgré contexte Covid bi. voilà ñi dagg nañ seen billet d'avion ñëw. voilà ñi assisté nañu voilà congrès bi en ligne mm-hmm. y e amoon na ay communication yu ñuy communication orale yoo xamante ni voilà da koy présenté nit ñi di dégg ba pare di gis mm-hmm. yooyu tolloon na ci presque quatre-vingt-dix communication mm-hmm. yi nga xamante ni moom mooy ay communication affichée yoo xamante ni ay ay recherche la ak ay ay liggéey yoo xamante ni voilà fii lañ ko defee ci Sénégal ak ci yeneen euh, dëkk Afrique yi yooyu tolloon na si presque vingt neuf communications affichées. Mhm. donc loolu day wane ne neurochirurgie ñu ngi continuer di def ay recherche ñu ngi continuer di jàng ak jàngale. Mhm. pour jëmale vraiment faju bi ñuy wax neurochirurgie ci kanam pour. maladie yi nga xamante ni vraiment ñoom ñoo ko soxla aussi ñu mën ko recevoir ci ci ci anam yi nga xamante ni moom la ko OMS bëggee. Mhm. Euh, docteur euh, Ndiaye semaine euh, bu ñu génn amaloon ngeen seen septième congrès bi nga xamante ne comme ni nga ko waxee dajale woon mbooloo bu bëri ay nationalité yu bëri donc daje woon nañ fa te jii rek lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ne moom moo nekkoon thème principal yi ngeen xamante ne soulevé ngeen ko. waaw les vingt huit ak vingt neuf octobre deux mille vingt et un ñu ngi teniroon benn congrès bu neurochirurgie bu société Sénégal sénégalaise de neurochirurgie. Mhm. donc boo nekkoon septième congrès bi parce que congrès bi depuis 2009 ñu ngi organiser congrès tous les deux ans. Mhm. Euh, di ko organiser pour voilà échange pour aussi voilà euh, def ay recherche ak euh, surtout invité waale suñu naataango yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci sous région bi mm-hmm. pour ñu ñëw ñu échanger kenn ku ci nekk joxe sa xalaat ci neurochirurgie pour jëmale ko kanam mm-hmm. donc thème bi année bii mi ngi nekkoon les urgences neurochirurgicales donc mm-hmm. bu ñu nee urgence neurochirurgicale mooy lépp loo xamante ni feebar boo xamante ni faj bi dafa war a gaaw c'est-à-dire prise en charge bi de gaaw donc euh, urgence bi nga xamante ni moom la ñu gënoon ci loolu la ñu gënoon waxtaan moo nekkoon les urgences les traumatismes crânio-encéphaliques donc accident yi nga xamante ni dafay indi euh, ay blessure ci bopp bi moo xam ci yax bi la moo xam ci yóor bi la mm-hmm. donc ci loolu lañu gën a waxtaanee mm-hmm. biñ ci waxtaanee nag dañu seetlu ni pratiquement voilà accident yu bëri ci xale yi lay ëppee mm-hmm. donc xale yi nga xamante ni euh, c'est des enfants à basage âge yi nga mhm. xamante ni ñu ngi door jàng dox wala ñi nga xamante ni voilà trois quatre ans jëm cinq ans ci ñooñ lay gën a dal te li ci ëpp aussi boo xoolee ci ay daanu lay doon mhm. moom la ñuy wax voilà les les les les chutes mhm. donc chutes yi nga xamante ni nag moom la ñu gën a seddu mooy les chutes de balkon xale bu jógee ci balkon daanu hmm. wala bu jógee ci terrasse daanu wala xale boo xam ne dafa daanu ci ay escalier bërëngu ak yooyu hmm. donc loolu bëri na trop trop trop li nga xamante ni ñu ngi koy am donc loolu day tax ñu sensibiliser euh, parents yi hmm. parce que vraiment war nañu gën a vigilant côté boobu war nañu gën a mën a surveiller xale yi côté boobu war nañu gën a mën a def ay sécurité ci seen dëkkukaay yi ba nga xamante ni xale bi du daanu wala xale bi ñu di ko surveiller ba nga xamante ni du génn ci mbedd bi mhm. euh, dara di ko fël ba muy am traumatisme crânioencéphalique donc parents yi ñu ngi leen di ñaax vraiment ñu redoubler d'effort côté boobu mhm. gën a surveiller xale yi te gën leen aussi protéger mhm. donc ci traumatisme yooyu aussi euh, waxtaan nañ li ñuy wax les traumatismes vertébromédulaires donc bu ñu nee traumatisme vertébromédulaire mooy accident yi nga xamante ni dafay indi ay euh, feebar ci Euh, colonne vertébrale bi wala ci moelle épinière bi mhm. wala même ci nerf yi nekk ci biir euh, colonne vertébrale bi mhm. donc loolu aussi waxtaan nañ ci torop donc loolu voilà li ci li koy indi lu ci ëpp mooy les accidents de la route wala boo xoolee après voilà y a les accidents professionnels yi nga xamante ne yenn ouvrier yu aussi malheureusement voilà ci liggéeyukaay yi lay amee mhm. te li ci ëpp mooy maçon yi nga xamante ni voilà duñu am ay ay ay moyens de sécurité bés bu ñuy liggéey bay daano ci Euh, ay ay euh, ay étage mhm. donc ñu ci ëpp voilà dañ leen di indi ak ay traumatisme yoo xamante ni malheureusement day jàpp colonne vertébrale bi ak mhm. moelle épinière bi mhm. ak parfois même yenn neer donc li nga xamante ni moom mooy accident yi daal waxtaani nañ ko du bëri donc urgence aussi boo ko aussi mën na nekk urgence boo xamante ni moom la ñuy wax les urgences vasculaires koo xamante ni da am lu ñuy wax hémorragie ménagée par exemple hémorragie ménagée mooy nga jékki-jékki toog sa bopp jékki-jékki métti métti bu foor boo xamante ni mësu ko metti ci sa diiru dund ba mu la indil ay wàccu wala mu indil la ay perte de connaissance ak yooyu loolu bés bu amee malade bi dañ ko war indi ci nu mu gën a gaawee hôpital yóbbu ko service d'urgence ou service de neurochirurgie mm-hmm. donc urgence yi aussi mën na nekk loo xamante ni euh, voilà ay euh, infection la boo xamante ni peut-être voilà ci biir yóor lay nekk moom la ñuy wax abcès ou ampiam te li ci ëpp muy dal xale yi donc loolu aussi bu amee voilà le plus souvent gaaw leen xale yi ci urgence service d'urgence wala ngeen yóbbu ko ci service de neurochirurgie yu leen gën a mais docteur wax nga sa bopp day metti mu wàccu loola wala mu perdre loola connaissance mais terewul mu mel ni am ngeen ay quelques jafe-jafe surtout li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum infrastructure waaye tamit matériel boo xamante ne vraiment yu ngeen amee yenn malade yoo xamante ne dafa compliqué di ngeen ko mën a opérer comme il se doit. waaw boo xoolee service de neurochirurgie bi nga xamante ni moom la ñuy wax service mère mi ngi nekk fii ci hôpital fan mhm. ci voilà service boo xamante ni euh, mi ngi am depuis mille neuf cent soixante dix huit ba deux mille un mi ngi doon fonctionner. alhamdulilah professeur bi nga xam ne nag moom moo njëkkoon nekk chef de service bi moom la ñuy wax professeur Mamadou Gueye yàlla na ko yàlla jégal tey rëm ko yàlla na suuf sedd ci koom mhm. après 2001 voilà tëjoon nañu service bi pour defaraat ko ba mille 2007 bon 2007 bi mu ubbee euh, ci lañ ko tuddee sax clinique Mamadou Gueye après voilà suñu chef de service bi ñu tuddoon sànq di professeur Boubacar Badiane moom moo ko yoroon nekk chef de service bi mm-hmm. ba mu demee retraite yàggul muy décembre deux mille euh, vingt bi ñu génn nii mm-hmm. léegi actuellement chef de service bi mi ngi tudd professeur Momar Codé Ba donc euh, ñu ngi koy gërëm moom aussi au passage di ko ñaanal yàlla yàlla oyofal ko yen bi mm-hmm. di ko wax ni voilà mën na compter si ñun ak compter sama yeneen naataango yi nga xamante ni ñoo nekk hôpital Fann muy professeur Ndaraw Ndoye professeur Aline Badara Thiam professeur Mbaye Thioub Juliette euh, Mbaye mhm. léegi neurochirurgie voilà côté infrastructure aussi mën nañ ne des na mhm. parce que voilà boo xoolee service neurochirurgie bu Fann après mën nga lim service euh, neurochirurgie bu nekk principal ak bi nekk hôpital Idrissa Pouye voilà ak CCTO mhm. donc boo xoolee daanaka ñett service yooyu ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal ci Dakar plus précisément après euh, yàlla def na ni bi ñu formé yenn neuro yeneen neurochirurgien ba nga xamante ni génn nañ am na ñoo xamante ni léegi ñu ngi ci région yi sant yàlla mm-hmm. am na ñu nekk Saint-Louis am na ñu nekk Kaolack am na ñu nekk euh, Ziguinchor mm-hmm. am na ñu nekk Touba am na ñu nekk Thiès donc côté boobu ñu ngi sant yàlla parce que ñu ngi ñu ngi décentraliser euh, spécialité bi nga xamante ni moom mooy neurochirurgie mm-hmm. côté euh, ressources humaines aussi voilà gaa mi ngi yokk nank-nank mais ba léegi des na. Mhm. parce que boo compté voilà neurochirurgien yi nga xam ne ay sénégalais lañ ñu ngi toll ci vingt cinq neurochirurgien donc vingt cinq neurochirurgien ci seize millions d' habitants. Mhm. day nekk ratio boo xamante ni vraiment agul sax ratio bi nga xamante ni moom mooy norme OMS muy euh, voilà benn neurochirurgien pour deux cent quarante mille mm-hmm. euh, habitants mm-hmm. donc ba léegi des na mm-hmm. donc ñu ngi continuer nag am na ay xale yoo xam ne ñu ngi suñu ginnaaw ñu ngi nekk di formé wu te am nañ yaakaar ni incha allah fii ak at yu néew dinañ nga xamante ni ratio bi OMS fixé muy benn neurochirurgien pour deux cent quarante mille habitants dinañ a ba dinañ fa àgg incha allah mais docteur si vingt cinq chirurgien pour euh, seize millions donc d'habitants mu mel ni gab bi moom fossé bi yaatu na lool ba moom moo waral sax sama question bi ndax donc traitement bi dina dina dérouler wu comme il se doit ay nit ngeen donc des fois il arrive que certainement ngeen am ay patients mais vraiment da ngeen di sentir que ne donc vous vous vous vous ne tenez plus donc je suppose que traitement bi temps bi mu waroon laaj ak yow mii di exercer le métier sax concentration bi la waroon donc da certain moment tamit sonn dalay daal di gàllankoor. waaw loolu loolu loolu parce que doyul voilà kenn du ne vingt cinq neurochirurgien ci euh, ci dëkk bu mel ni Sénégal doy na. Mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, voilà doyul service yi aussi doyul. donc euh, bu ñu sañoon am service yu ëpp bu ñu sañoon aussi voilà neurochirurgien yu yokku mais comme ni ma ko waxee comme que neurochirurgien yi ñu ngi ci formation te formation bi ñuy jox neurochirurgien yi nekk Sénégal alhamdulilah mhm. formation bu baax a baax la parce que loolu aussi suñu maître yi ñoom ñoo ko def mhm. ñu ngi leen ciy sant bu baax donc ñu ngi ciy sant yàlla place yi tout le temps dafay manqué mhm. loolu dëgg la parce que service yi ñoom ñoo doyul te lu doy ni Dakar nga xamante ni vraiment voilà population bu ëpp presque fi la nekk euh, am voilà trois services yoo xamante ni ñoom ñooy def neurochirurgie mhm. donc dafay xaw a métti mhm. waaye aussi euh, vala comme li ma wax ñu commencé décentraliser parce que boo décentraliser dina wàññi tuuti maladie doon jóge ci région yi di ñëw Dakar mhm. donc looloo tax voilà neurochirurgiens yi nga xam ne génn nañu nga gis voilà ñu yóbbu kenn par kenn ñu di ko yóbbu ci région yi ba jam ñaañu sax léegi am na aussi ay neurochirurgiens yu fa nekk mooy euh, hôpital xale yu nekk jam ñaañu aussi ñu ngi ci gërëm suñu maître suñu mhm. professeur yi nga xamante ne vraiment am nañ idée boobu pour mën a décentraliser neurochirurgie bi mhm. ngeen soxla certainement ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a spécialisé wu en anesthésie réanimation wala infirmier bu spécialisé wu ci bloc opératoire bi yooyu lépp tamit mu mel ni dafa manqué ci seen spécialité bi waaw loolu manqué na loolu aussi manqué na muy anesthésiste yi manqué nañu mhm. ay anesthésistes yoo xamante ni allah ñoom ñu ñu xarañ lañu mel ne professeur Diaw Ba professeur euh, docteur Hélène Bassama ak docteur Yacine Ndoye ñi ne ñoom la ñuy liggéeyal fii si service de neurochirurgie bu hôpital Fann ñu leen di nuyu au passage vraiment ñoom ñu am yitte lañu ñu xarañ lañu mm-hmm. ba nga xamante ni gabu anesthésiste yooyu voilà yëguñu ko mm-hmm. mais aussi voilà quoi qu'on puisse dire voilà du loo xamante ni doy na boobu di benn ñaareel ba ma ñi nga ni ñoom la ñuy liggéeyal mm-hmm. muy les ibot ibot yi ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi nekk ci biir bloc bi di dimbali neurochirurgien yi pour ñu opérer yu baax donc ñooñu aussi ba léegi doyul mhm. am na ñu ci nekkal mais voilà vraiment ñoom aussi ñu xarañ lañu mais ba léegi doyul ba ñu mënoon am daal voilà anesthésistes yu yokku mhm. voilà am ay ibot yu yokku sur le plan équipement aussi des na mhm. voilà parce que voilà ñu ngi def suñu liggéey nu mu waree ñu ngi góorgóorlu ak moyens yi nga xamante ni moom la ñu am mais bés bu ñu amoon moyens yi nga xamante ni gën na baax aussi bu boobaa dinañu gën a mën a dimbali ci faj spécialité pathologie yi nga xamante ni neurochirurgie wala moom lay jël en charge lan nga mën a wax ci li nga xamante ne moo soxal euh, par exemple seen imagerie médicale euh, doy na est-ce que liggéey bi naka ngeen koy defee. alhamdulilah ñu ngi liggéey bu baax ak euh, waa service de radiologie. parce que comme li ma wax donc ñun mënuñu liggéey sans ñoom. muy service de radiologie ñoom ñoo ñu dimbali pour ñu voilà bu ñu bëggee scanner wala bu ñu bëggee IRM ñu mën ko def pour mën a poser diagnostic mën a jël en charge maladie. Mm-hmm. donc euh, loolu aussi voilà bu ñu ci mënoon am aussi lu ëpp li ñu am aussi ñu jël. Mm-hmm. parce que day permetre prise en charge bi mu gën a gaaw. d'accord euh, docteur Sy bokk na ci li nga xamante ne tamit xam naa ne am na lenn lu muy gàllankoor ci seen bërëb liggéeykaay moom moo di ne recensement des données tey jii certainement li ngeen di faj ci patient bëri na mais bu ngi leen laajoon ndax am ngeen ay xayma xam naa da ngeen koy def de manière approximative rek mais du ngeen am le nombre concret aussi tamit foofu ndax taxaw def fa benn seetlu bu yaatu aussi jàngat phénomène bi comment est-ce qu'il faudrait faire vraiment ba ñu am saa ça pourrait contribuer certainement ñu mën a xool gap bi fu mu nekk. tout à fait loolu moom recensement de données yooyu loolu problème bu mag la. Mhm. technologie bëri na ay services yoo xamante ne vraiment loolu nekk na problème bu récurrent boo xamante ni voilà ñëpp am donc recensement de données effectivement problème la parce que voilà dañuy xayma mais aussi am nañu ay registres yoo xamante ni dinañu permettre ñu enregistrer mais bu ñu sañoon léegi tout ce qui est recensement ñu mën ko informatiser parce que bu ñu amoon benn système informatique boo xamante ni dinañu permettre ñu am suñu base de données dinañu permettre non seulement conservation bi voilà jaar ci anam yu baax mhm. mais en même temps dinañu permettre voilà ñu am recensement bu fiable mhm. donc euh, voilà loolu effectivement problème la problème archivage aussi voilà c'est un parce mhm. que voilà dossier yi nga xamante ni mooy dossier maladie ay voilà war nañu am koo xamante ni voilà moom moo koy ranger comme il faut moom moo koy génne comme il faut bu fekkee soxla nañ ko bu fekkee loolu amul aussi dafay indi jafe-jafe ci mhm. suñu liggéey mhm. donc problème recensement problème archivage ak problème voilà de stockage de données loolu effectivement c'est un problème boo xamante am nañ ko euh, lan nga jàpp ne moom mooy solution bi tey ngir mën même bu fekkente ne mënuñu matal lépp mais au moins ñu xaw a moo xam euh, ci li nga xamante ne moom moo di données yi ak i tamit euh, bi nga xamante ne moom mooy déficit de ratio bi surtout. waaw déficit de ratio bi moom je pense que il faut déjà ñu former plus de neurochirurgiens donc former plus de neurochirurgiens ce qui veut dire que voilà on a besoin de plus de matériel soxla nañu matériel bu bëri pour wàllu jàngale bi. Mm-hmm. soxla nañu aussi euh, voilà bu fekkee lu jëm ci formateurs yi alhamdulilah am nañu xarañ ñoo xamante ne ñu ngi mhm. fi mais voilà dafa am aussi lu muy àndal muy sur le plan matériel d'accord donc foog ñu am ko sur le plan équipement sur le plan infrastructure aussi mhm. yooyu yëpp foog mu topp ci formation bi pour ñu mën a génn ay neurochirurgiens yu bëri pour mën a jege ratio bi ma wax nii mhm. donc loolu mooy pour ratio bi beneen bi mooy côté euh, voilà stockage de données ak euh, voilà problème de registre nga xamante ni moom mooy dugg ci service de neurochirurgie donc bu ñu amoon benn système informatique boo xamante ni dinañu permettre ñu def ko je pense que dinañu mën a conserver les données problème archivage aussi pareil man je pense que Sénégal toll na foo xamante ni léegi lépp li nga xamante ni moom mooy dossier papier dañ ko war dindi mhm. parce que léegi voilà monde bi moom moo toll nañ foo xamante ne tout est informatisé donc li nga mooy dossier papier normalement dañ ko fi war a je pense ñu ko a am ay données yu baax ay données yu fiable et puis dinañu mën a permettre aussi recherche yi nga xamante moom la def ak études nga xamante ne koy def ci neurochirurgie ñu mën ci avancer. Euh, euh, sànq yaa ngi wax euh, décentralisation bi donc commencé na certainement am Saint-Louis di ñëw Dakar ngir mën a def peut moo xam analyse wala peut-être yenn rajo mais ndax décentralisation bi ñuy faratal di wax tout le temps les moyens suivent parce qu'il arrive que ñu débaucher kenn bëgg ko yóbbu bon du la ne ouvertement du dem mais certainement da koy traîner traîner traîner traîner traîner ma bëggoon xam ndax euh, ci seen spécialité bi di neurochirurgie et bon les moyens suivent pour que vraiment ñu encourager les gens ñu xamante ne Sénégal euh, yemul ci Dakar. waaw am solo parce que décentralisation boobu voilà comme yow moo wax dinañu permettre euh, neurochirurgien yi nga xamante ne ñu ngi Dakar. Mm-hmm. ñu mën a bañ a boole ay malades yu bëri bëri bëri parce que loolu day wàññi qualité prise en charge bi. Mm-hmm. donc euh, décentralisation dafa am lu mu war a àndal. mooy li wax mooy ñi nga ñu ngi nangu dem ci région yi pour di fa def spécialité bi ñuy wax neurochirurgie war nañ leen mettre ci yenn conditions yi. Mm-hmm. mais boo jëlee neurochirurgien bu formé ba pare malade yi wala matériel bi nga xamante ni moom lay am pour gis feebaru malade yi dans ce cas là problème dafay am mm-hmm. donc décentralisation boobu dafa war a accompagner ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay dem muy côté infrastructure voilà di côté aussi ressources humaines parce que neurochirurgien bi kese mënta liggéey ci coin mm-hmm. dafa am ñu mu soxla moo xam anesthésiste yi la moo xam voilà infirmière yi la moo xam ibot yi la ñoo am solo ci liggéeyu neurochirurgie la donc voilà bi kese mais mm-hmm. personnel boobu yëpp dañu war a suivre neurochirurgie prévision bi. Mhm. Euh, prise en charge bi wax nga ko comment est-ce que cela se passe. prise en charge bi bu fekkee Dakar. voilà dañoo am service bu ñuy woowee service de consultation externe boo mhm. xamante ni voilà suñu yaay suñu xarit euh, ku ñuy wax Aram Diop madame Diallo moom moo ko yor. Mhm. koy sant bu baax di ko gërëm au passage di ko ñaanal yàlla. Mhm. donc moom mooy gérer li ñoo consultation externe. ku bëgg ñëw gis na d'habitude da ngay jaar ci consultation boobu ba pare. mais le plus souvent day nekk malade yoo day fekk benn médecin gis moo xam généraliste bi moo xam beneen spécialité. bind la kayit ne la ah yow li nga koy fajee nga jaar ci consultation. externe boobu ñu jox la rendez-vous rendez-vous bu jotee nga ñëw ñu ubbi le dossier après suivre la mhm. voilà bu ñu suivre nag amaana day am opération amaana du am opération mais foofu moom mooy circuit bi nga xamante consultation externe la mhm. pour malade yi nga du urgence mhm. bu dee feebar yi nga xamante ni moom wax les pathologies d'urgence aussi am nañu benn service d'urgence boo xamante ñu wax madame Cissé moom koy gérer moom boo ñëwee foofu am pathologie bu urgente méngoo ak feebar bi nga am et puis après voilà am na beneen circuit aussi boo xamante ni circuit transfert la c'est-à-dire malade mën na jóge beneen hôpital ñëw directement ci service de neurochirurgie prise en charge yi d'habitude si ñett lañ koy résumé. docteur si mu mel ni waxtaan wi am na solo lool waaye daa mel ni eh, luñ ñu cëraloon ci waxtu bi daanaka yegg nañu ci. waaw maa lay jaajëfal euh, bu baax euh, Fatou ci invitation bi voilà di gërëm aussi euh, voilà seen directeur bu mi FM mhm. di sant euh, bu baax euh, voilà sama naataango yi may liggéeyal ñoom ñëpp lim naa leen di sant aussi samay ñaari wayjur maa lay jaajëfal bu baax yow aussi voilà Baba fal ci invitation bi mhm. di gërëm bu baax waa mi FM ci li euh, ngeen ma invité tey ci seen émission bi ma ci am mbégte bu baax di sant aussi sama soxna bu mhm. baax di sant voilà képp ki nga xamante ni ñu ngi doon déglu lay jaajëfal bu baax Euh, sant ko gërëm ko bu baax a baax moom mi nga xamante ne moom moo di El Hadji Cheikh Ndiaye si Cheikh Ndiaye si moom nag euh, moom wax na ci li nga xamante ne moom moo di neurochirurgie waaye tamit euh, taxaw na ci fi nga xamante ne moom moo di neurochirurgie bu concerné pédiatrie bi maanaam tout temps kii ba moom moo war sax muy sàkku ci waajur yi moo xam pap wala yaay ñu bàyyi xel bu baax a baax ci xale yi nga xamante ne ñoom ñooy gën a nekk seen patient ndax lu bari ci seen yenn yi li leen indi daanaka ay daanu yoo xamante ne certainement bu ñu vigilant woon amaana ma sax du yegg foofu wax nañ tamit ci beneen jàngoro boo xamante ne moom moo di hydrocéphalie bi nga xamante ne bu jigéen euh, tombé ci jur am na ay moyens yoo xamante ne mën na ko éviter moo xam laata muy jël grossesse wala ci duru grossesse bi mën na jël ay médicament wala ay loo xamante ne vraiment do koy éviter mu am euh, yooyu les feebar yoo xamante ne daanaka bu danee bu dalee doomam euh, dina metti liggéey bu baax a baax ndax psychologiquement doo nekk financièrement aussi tamit njëg bi dafay daal di cher bu baax a baax mu indil ñu ay ay leeral yu am solo lool wax dëgg yàlla ci li nga xamante ne moom moo di la neurochirurgie gërëm ko bu baax a baax moom docteur El Hadji Cheikh Ndiaye Sy ma fàttali ne neurochirurgien la assistant interne des hôpitaux waaye tamit nekk maître assistant ca faculté des sciences bu nekk fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar fàttali ne nag ba ba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen def ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité